boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo nawwir fuaadiya wa ishrah sadri waj'al jihaadiya ka yawmi badri bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen bàllu àq ginnaaw bu ma jégguloo sama boroom te di ko ñaan mu boole ñu jéggal suñuy rëcc-rëcc te mu dox suñu diggal seytaane ba ñu mën a sellal suñu jaamu yàlla te mu baaxe ñu suñuy jëf na doon bu rëy moom te doon bu néew fi nun te mu dolli ñoo gàttalu ci kàttanam ba suñu lompoñ bañ a feeñ te suñuy xol fees dell ci dëkku ak dëggal te suñuy cër làggi ci ak njub mu mel na nag bis bii ak jataay bii lu ñu miin la ci barab bii nu koy defee te bu bokk ci barab yi xaadimu rasuul sancoon te defoon ko daara ba kenn ci njabootam ganee fi àdduna muy as-sayida aïsatu mbakke bintil xadim bis booba nag la ñuy fii at mu jot di ci sant suñu boroom mi ñu booleeg moom moo tax bu bis bi egsee ñu ànd ko ak mbooleem ku mu jaboote ànd ko ak bokk yi ak wëllëre yi ñu daje fii defal ko ay ñaan yéene waale ca mbooleem ña ko fa jiitu ak ña ko fa fekk bis bu ñu fi mën a jagleel kenn ci njabootu sëriñ bi nag képp ku bokk ci yoonu murit boo amee ngàntul teew soxla nañu say ñaan ndax sëriñ bee leen boole loolu moo waral ci njiitul ki jiite yoon wi muy sëriñ Mouhamadul Muntaxa ak mbooleem ay rakkam ñoo leen fi wuutu ngir taxawe bis bii di sant nag di bég ci njaboot gi aji ci kër gi di rafet lu seen taxawaay waxtu wu ne muy góor ñi di jigéen ñi yàlla na leen yàlla taxaw te jàpp ndal seeni mbir bis bi nag bu waxtu bii masaana tollu fii faaw ñu yëkkati fi ay kàddu fàttalante jëm ci ñi ñu bokkal diine ji ak ñi ñu bokkal yoonu murit ak waa réew mi ndax ñàkk yi foo ma fi làmb daj ma fa di ci jiitu ab jullit laa di ci topp ab murit laa bi ko ñetteel ab citoyen laa bu dëkk ci réew mi kon lu ci ne lu ma cay wax maa ñu bare ko bokk kon fii ñuy tàmbalee suñuy kàddu mooy fàttali suñu bopp fàttali bépp jullit li waral suñu borom bind ñu ñu ci fii ci àdduna mu xamal ñu li ñu fi war a nekke ba noppi umpale ñu kañ lañu fiy jóge li ñu fi war a nekke nee na wa maa jinna wal insa illa liya'budun moo tax àdduna jullit waru fee sànq ay waxtoom ci am neen te li war a jiitu ci moom mooy sàkk koo xam nu muy jaamoo yàlla te àdduna bu fi ne bis bu ko na ci sa dund te xamoo li des ci sa nu mu toll moo tax farlu ci ak topp yàlla moo gën a wóor naa ko ci say jëf moom borom bi subhaanahu taala mooy huwa alladi xalaqa allayla wa nahaara wa samsa wal qamara kullum fi falakin yasbahuun wa maa jaxalnaa li basarin min qablika al xulda afa in mitta fa humul xaaliduun kullu nafsin saa'iqatul mawt wa nabluukum bi sarri wal xayri fitnatan wa ilayna turjaun kon ñu war a xam ne adduna ak li nekk ci biiram lépp a jóge te yóbbu ñi jiitu mënu fee bàyyi ñi fi des moo tax kullu shay'in haarikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turjaun képp ku mucc nag ci gàllankoor yi adduna ngir mu fegal la fitna yi ëllëg yawmal xiyaamati na góor góorlu ci jéem a xam yoon wi na nga jéem a na nga jéem a góorgóorlu ci xam yoon wi ñu jaarloo ak nga bañ koo wàcc ndax ki yàlla yónni ci nun di muhammad alayhi salaatu borom bi wax ko ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin dellu wàcce ci moom alquran ne ko wa nazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin ab jullit bu bëggee noflaay yu ëllëg na bu baax i topp yàlla te nangoo def yonante bi muy royukaayam ci diine ndax wa man yuti'i llaha wa rasulahu wa yaxsa llaha wa yattaqihi fa ulaa'ika humul faa'izuun kon jullit ak texeem dëgg mooy gudd aw bu ànd ak topp yàlla li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne afdalu saadaati kuule omre fi taatillah ñu man cee dégg ne fan bu gudd bu àndul ak jaamu yàlla amul njariñ te doon jullit ci kàddu te àggul ci sa xol say cër mënu koo jëfe moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne man qaala laa ilaha illa allahu saalixan min qalbihi muxlisan wajabat lahu aljanna ak jullit nag ginnaaw bu mu wéetalee yàlla bañ koo bokkaale ak lenn war naa ragal yàlla te xam ne al xawfu ibadatun xawluhu taala fala taxaafuhum wa xaafuuni in kuntum muminin la ca dolli ko mooy ar raja ar raja ibadatun xawluhu taala fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada bi ci topp mooy ak tawakkul at tawakkulu ibadatun xawluhu taala wa ala llahi fatawakkalu in kuntum muminin fii ci adduna nag ku fi ñëw ba nar a dellu te nanguwoo topp yàlla ragaloo sa borom bi la bind yaakaaroo yàlla wàkkirluwoo ci moom boo delloo fa moom la doxal sa diggam loola mënu laa koy wéttal te adduna day ak julit waru fee séttu am noflaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa raaxata li muminin illa bi liqaa'i wajhi rabbi kon ak jullit bu fi bëggee nekk am noflaay fii ci àdduna man na koo tarxiisloo ba doon fitnaam ëllëg yawmal xiyaamati te fii ci àdduna lu dund gi neex neex ba lu dee gi bari bari doo ci limaale sa bopp teruwul nga waroon a xalaat ne ña faatu ak yaafus yóbbuwu leen te yow mi fi desandi bari ay pexe bàyyiwu la fi te ku ne ñàkk xam bis bi ngay sa borom war na laa doy ay xalaat te mboolem ku ñëw adduna àllaaxira yow day xaar te bul fàtte ne da gane si woon adduna mu terale la ay bagaasam te bi ngay ñëw àndaale woo dara kon booy dellu dara mënu laa moo tax adduna ku fi nekk baye boo di waaj sa waajum biir boo ba waaye boo bàyyee ba ñu dana bari lu manqué te koo fi batale sa mbir xamoo yaa moom ku cay jiitu waaye ak lu mën a xew mooy ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ma jàll nag ci yeneeni kàddu yi ma fi nar a yëkkati te am ñu ma ko jagleel ngir ñu man koo dégg ñooñe mooy ñi suñu borom def ñu yor jëm ñi nit ba noppi mu baaxee leen am xel mu ñuy mën a xalaate lu leen di jariñ waaye ñu yor nit ba noppi suñu borom nattu leen ba séenum xel lu leen di lor dong la leen di xalaatal ñooñu nañu ma jéggal te xam ne fii may waxe tiim na leen kon bokk na ci ñi may waxal mooy ñi nekk ay nit yu nite te jub ba noppi bëgg lu baax waaye ñi seeni xol chronique ci ab safaan ak jëf yu ñaaw yu ñépp xam yàlla nañu borom bi subhaanahu wa ñoom nu nag dañoo am yéene raxas xelu képp ku ñu nar a am xelam kon ñu tàmbalee ci réew mi di Sénégal ndax réew mi nag fii mu jëm mat naa xalaat ndax am réew bu fekkee dafa bari ñu jàng te te réew mi dafay bari ñu jubati te kenn jubatiwu leen réew mi bari na fi ñu yarati bu lool te kenn yaru leen réew mi bari na fi ñuy jaxasoo ak i nit te nite wuñu li ko waral nag ku fi jàng te ana looy réew mi te ñi fi jubati te ña war a jubati gën leen a dëng ana luy seen jariñ ci réew mi ñi fi yarati bu ba xëy ne léng niroo nit ba noppi yore xerum bàyyi ma ñooñu ana leen réew mi du doyee moo tax réew mii tu lool ay jikko ya ñu fi xamoon ñu asgor war a làmbool te léegi xamee ko yor néew lool lay yóbbu nag jikko yu baax ya ñu xamoon ci asgor moo fi bàyyiwul melow baax wu ñu mën a roy moo tax réew mii lii fi lëndëm mat naa leeral te suñu borom rekk moo mën a sàkk ci ay jaamam ñu koy leeral waaye ñii fi nekk ci këri diine yi te waroon lu fi lëndëm ñu jéem koo leeral la ëpp ci kër yooya ku fiy def lu lëndëm mooy doon sab làquwaay maa ngi laaj nag ña sancoon kër yooya ndax seeni jeexit des na fa wala image ka sañcoon kër ga moo fa des ñu di ko jariñoo moo tax nii ku fi amul ak ràññee daañu la jaamuloo ay xërëm te doo ko xam ndax ñi jëkk a yeewu te bañ yeete ñoo réeral nit ñi ñi juddu ci ak dëgg ba noppi di jëf lu waroo ak dëgg ñoo tooñ nit ñi te ku say waajur mat sëkk royukaay ci diine te yow matoo njiit yaa suufeel diine ji moo tax fii jamono toll ku xamul sa bopp ku ne mag ngaa yërëm ndax ndono lu mu baax baax ku ko mënul a dundal bokkoo ca te ñu baree ngi dund ci ndono te yelloo wuñu ko ndax wépp melo wu ndono la daamu bañu ko jàlgatee yàgg na waaye ñoom ñi mbubboo diine ji te nit ñi di leen ormaal di leen teral ngir seenu askan te lu diine bëgg ñu bañ ko te ñenn ñi di ñu màggee ba mënatuñoo nëbbu la door a tuub kon yàlla na leen yàlla jéggal la ñu weesu waaye lii seen gàllankoor mooy mbooloo topp la nga war leen a dig digal lu baax wala nga tere leen lu bon nga mel ne kuy moytu ngir ku ngir bañ ku fàttaliku jaar-jaar waaye li ma ta xam bari na li mag ëppee sens ndaw yi nag ndax seeni jamono amul woon lii ñuy wax réseaux sociaux waaye nag noonu la leen ndaw yu bari ëppee sens ci gën leen a rafet ay jaar-jaar moo tax waxtu wu ne ndaw dafa war a am mag mu xam boppam encadré ko te bu ca boolee dajug réer te nangoo jaar ci yoonu njub ndaw lu mel noonu warees na ko bàyyi xel te xam ne ndaw bu baree lu mu xam te fekke ca lu bari te la mu fekkewul te war koo te war koo xam histoire xamal ko ko loolu nag képp ku mu fa nga jëm mën loo ragal moo tax réew mi nag nañu delloo si jikko yi ñu jikko ya amoon démb te mag ñi di yërëm ndaw ñi te xam ne am nawle du tuuti te mag dafa soxla ndaw di ko ormaal ndaw itam ormaal mag mooy wareefam waaye mag bu masee jaar ci yëfi ndaw na xam ne mënula ump ndaw lu mësula jaar ci yëfi ndaw moo tax bari ñu sañ a digle waaye sañu ñoo tere réew mi di Sénégal ne coow li bari na lool waaye li yokku politiciens yi ak kilifa diine yi li ko waral nag kilifa diine yi dafa am ñaari kuréel yu bokkul politiciens yi am ñaari kuréel yu bokkul benn kuréel bi yelloo ñu leen di woowee kilifa diine ñooy ñi jàng te jub tey jaamu yàlla tey liggéey lu ñu sàmmee seen ngor ak seen diine kuréel boobu ñooy sàmp seen donay maam ya kuréel bi wuuteeg ñoom nag mooy ñi juddoo ci këri diine yi te jànguñu jubuñu nanguwuñoo liggéey te bëgg teraangay àdduna te ragal ab joono kuréel bu mujj bii tariixa boo leen fekk jàpp ne ñoo koy jiite loolu moo waral kenn mënu leen a tàqale politiciens yi nga xam ne ba ñuy dugg ci politique seenum njàng eggul ndax juddoo ci famille bu néew doole moo leen tax a dagg seenum njàng kon ñooñu seen intérêt personnel moo leen dugal ci politique waaye du intérêt réew mi kon nga gis ne kuréel yi yore coow li ci këri diine yi dañu waroo lool ak na seeni maam ànde wala nasaraan bi te taxut ñu mën a suufeel ñu mas a suufeel seen diine waaye ku dégg coow li war a xam ne ñaari kuréel yii di wër seen njariñul bopp ñoo waral coow li kuréel bi war a def politique nag mooy ñi nga ne ba ñuy jàng ñi nga xam ne ba ñuy jàng bëgguñu woon a doon ay politiciens ndax ni mu baaxoo doxee ci réew ba tax na ñooñu amuñu woon benn gàllankoor ci seenum njàng waaye fii jamono toll képp ku xam li feeñ ci réew mi ci am koom te askan wi ci réew mi ñu ci bari dégg rek lañu ci am kon képp ku xam fooy jaar ba ñépp man cee jariñu sa taxawaay dafay jaaru Sénégal nag dañoo miinu kenn sonn wala ànd sonn ñépp jariñoo moo tax ku leen jëkk a xam loo mën lijjanti ba njariñ man caa feeñ faaw nga bari ñu lay sopp waaye ñëpp tàmm la jëf day ñoo lay jàppe am noonu ndax Sénégal li fiy tuddoo ak jullit bari na lool waaye noonu la fi jikkoy jullit néewe moo tax feebaru xol yi ñi ko waroon a faj ci wàllu diine ñu bari ci ñoom faj seen bopp war na leen a doy soxla réew mi nag feebar yi fi nekk te naqari fee jële bokk na ci ñàkk a maandu ak wax lu dul dëkk ak kañaan bu fees ak jikkoy naa fekk ñoo xam ne ña koy làqoo kenn du leen ko fooge ba ba tey lu jëm ci diggante politiciens yi ak yenn ci kilifa diine yi li waral ñu bari ci ñoom lépp lu leen politiciens yi wax ñu fekk leen ci rawatina ñi nekk ci pouvoir bi ndax lii ñuy tudde ay caisse noire ci réew mi boo doon wër sëriñ bu mën a waat ne mosu laal ñi ngay gis lu bari lii nag moo waral sëriñ su bari seenu ñaan seenu ñaan suñu borom demirlu ko ndax bu ndekkee alali ger ba noppi di reere alal ju léwul na la wóor ne lépp loo man di woo yàlla du la ca wuyu kon képp ku yàlla na too nga am kilifa gu ca ñooña bis boo amee ay aajo bul ca xeeb sa boo bëggee lu gaaw ndax kat amul benn natt bu gën a ki nga ne mooy kilifa te moom xamul luy cëru kilifteef moo tax ku bëgg a dem àndal ak koy dox te xam ne boroomu fit mënula ànd ab ragal te luy atam néew néew bu jubee dafay xatal mag mu jubul te jamono jii ku fi mënal sa bopp faaw nga bari ay noon te ku doyloo la am doo bàyyi xel ña la ëpp de tey ku moo tax lu waay mën a ñàkk mën na koo amaat ba mu des réere sa bopp rawatina ñi fiy jiite ay mbooloo te kilifa yu bari ci réew mi la ñu waroon a jikkoo te di ko jàngale rëcc na leen te dara waralu ko lu weesu gannaawal li fi mag ñi baax mag mu fi baax bul ko bàkkoo sa résultat way jur moo fay feeñ waaye ku fi sa doom jàngul ba noppi yaradeku mooy wane sa liggéey moo tax fii mu ne ku fi juddoo ci famille bu ñu yaakaare ak mbaax te li sa maam ci sa baay sa baay defu ko ci yow na la wóor ne boo farluwul boo guddee fan dara bu ñu la xamalul woon adduna moo lay xamal bu fekkee yeeruñu la woon adduna moo lay yar moo tax bari na lool ñu ñu fi ay kilifa diine fii ci réew mi te fekk na ci këye ñu làmboo ci yi ñuy làmboo diine diine seexlu na ko ndax di bubboo diine ji te lu diine digle doo ko def lu mu tere doo ko bàyyi ba nga wàccee yoon wi yàgg na te ku la topp ngi ànd réer fii ci réew mi nag mboolem kilifa diine te jaxasoo ak nitu nguur yi doxal réew mi warees na leen a laaj lu waral bu ñu amee soxla wax ak yi ca kaw bu ñuy fitnaal taalibe yi ñu ne jell te moo ne yi ñooy liggéey di jox sëriñ am liggéey mettee ñoom dañu tey woo te bu marchandise yokkoo taalibe yi ñoo ko yëg te benn sëriñ du leen wallu te li gën a doy waar taalibe bu la yaakaar gàddaay bàyyi ay bokkam ñëw di la liggéeyal di wuyoo saw sant bàyyi sant baayam fayoo sa maam mi woote woon li waral wuy si bi lu dul di fitnaal taalibe yi wuy si woon sa woote maam te lépp tegu ak tooñeel ab sëriñ nag ku mu mënul a fegal fitna yi lu may jële ca ba max ko te li ciy firnde fii réew mi toll ak ni mu mettee te ñoom ñu jaboote ñépp ba noppi seetaan leen te doole ji ñu yor ba ñu wegoon leen taalibe yee ko waral moo tax sëriñ bu ñu fi tàqalee say taalibe bu ñu lay song ngay daanu ab sëriñ nag ku ko lii ma nekk yow laa ci yaakaar te newu ma la du tam dafa bari dafa bari te dafa bari kilifa yu dul jéem dara ba noppi di la gàllankoor te loo yor ci lu baax ñu jàpp ne ñoo ca gën te donga yu ci barikat gënoo leen a déjub réer dàqoo leen a yàlla xanaa li leen bàyyi ci yow weesuwul sàmm kóllëre ak jëla suturaal ndax dongo yu bari fii ci adduna lu fi waayu fekkewul sam nopp jot na ca kon na sëriñ si dem jàngi te taxawal daara yi te dem liggéeyi tey jaamu yàlla te xam ne kat addiye kenn wuru la toog fi barab di ko xaar wala nga ciy fitnaal kenn rawatina yow mi xàmmeewul xaalis bu lëndëm ak bu leer moo tax sëriñ boo fi gis muy xeet addiye ju néew alal yu lëndëm ya moo fees ay moo tax ku xas ba àgg foofu connexion bi doxoon sa diggal sa borom dafay coupé loolu mooy waral kilifa diine yi ci bari poids bi seeni kàddu waroon a am amatu ko te lan moo waral poids ba seen kàddu yi way juree amoon rëcc leen ana tax cër ba état bi daa jox seen way juree lu leen ko xañ moo ne aga leen a wegoon ndax seen diggal seen borom moo tax la daa wax nitu nguur daawuñu ko yaru ci biirum néeg ndax koo xam ne li ngeen di séq waru la weesu itteey mbooloo mi waru la weesu itteey mbooloo mi la topp te ñoom itam ku ci faru mbooloo mee lay fal kon bu ñu boolewul lu ca waru la bokk jëru la nëbb mbooloo mi bu loolu jàllee suñu réew mi nag ñi fi yàlla jox alal ci bari ñenn ñi dañu ko liggéey ba am ko mu lem leen doom ñenn ñi wut alal ba am ko ci ay pexe ngir ragal ak coono ñenn ñi du wut alal ba mu jaral leen di jël yëfi jàmbur waaye li ma taxam wutiinu alal na rafet te xam ne fii ci àdduna lépp lu fi waay lëndëmal dees na ko leeral ëllëg yowmal xiyaamati te alal gi lu mu bari bari bis bu sagroo di wuy ci sa borom la la cay topp weesuwul la nga ca jëfoon te muy lu baax lu cay ab safaan nag boo ko tuubul fa nga koy fekk te li nga fii bàyyi lu mu bari bari du la topp ci sa baxum bàmmeel te fu ñu la jébbale sa borom ay minutes yu néew nga wét fa kenn du la wétli ña la doon suula kay maasale yàkkamtee dellu ca kër koo ca xañoon ku ne te mu war am yoon jox ko ab cëram moo tax lu fi waay nga lu fi waay yor gaawantul ci say jëf lu baax te bañ koy siiwal ndax ak jullit dafay war a rafet njort waaye kenn xamul waxtu bi ngay génn àdduna kon alal ci li nga war a xam bi ngay dund nga ci am ab dogal moo tax nga war caa dawal fa nga jëm bala ngaa faatu te doomu aadama li mu gën a bëgg mooy am na doom moo te mooy alal akum njaboot te yàlla nee na innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun moo tax alal ku koy wut ba am ko xam la ko ci war mu di ko def moo gën ci moom ndax ku yàlla nar a dimbali da ngay teel a xam ni yàlla génne lu ci alal ji ci waxtu wa mu waree nga génne ko te jox ko ña ko yàlloo te mooy asaka te ñu bari di ko génne te nañu ko xalaate di tànn ña leen neex te du ñu leen jox lu leen mën a tàqale jëfandikoo asaka te boo koy jox war nga ko yéene mu dañoo wax ne seexluwul ak juddu dañoo wax ne alal seexluwul ak juddu nekkoon dana bari fu mu dul yenni ko li ko waral am na fii ay famille yoo xam ne dañoo néew doole lool te du seenu yaafus suñu borom tànn ca seen biir ay benn jox leen alal te du seen ngóor bu ñu gàttee am xel seen mbokk mu leen nanguwul a jaamu dañu lay jàppe am noonu te bu ñu fàtte ne te bu ñu fàtte ne seeni deret benn la te am na ñoo xam ne ak ñàkk du leen tax a saalik mukk kon lu fi waaye di jëf na yàlla rek a tax te ngeen bàyyi di dolli ab jàng te maa ngi laaye biir borom alal yi bëgg a liggéeyal yàlla te bañ seeni alal yóbbe leen fitna ëllëg nañu jéem a farlu ci taxaw daara ak di liggéey ci jàkka ak jumaa yi ak a yokk fajukaay yi ci wàllu wér-gi-yaram ak a dimbali néew ci doole yi ni ci miskiin ak faqiir yi ndax Umar ibnul Xattaab radiyallaahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء لصبرهم هم جلساء الله تعالى يوم القيامة moo tax ñi fi yàlla jox wërsëgu àdduna ñu ci dimbali jaamu yàlla yi na leen wóor ni ak yokkute rek la leen jural ndax borom subhaanahu wa taala nee na wa maa anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raasiqiin te ku ci wuñ ci sa borom da nga xeeb lépp loo mas a jëf ci lu baax. moo tax ku fi yor xol joxe yàlla na la suñu borom di jox looy mën a joxe képp ku am nag mbokk mu bari alal lay jokk seenu mbokk bul ko yóotu te képp ku séq ak borom alal kóllëre boo ittewoo ca alal ja nawloon te daal fay jeex kon ak jullit dafay nangoo liggéey tey jaamu yàlla te bañ a yaakaar ñàkku jàmbur ndax koo yaakaar ci alalam la mu yor doy ko te ku yorul lu ko doy mënu jox lu la doy kon sa cër mooy nga doylu bu loolu jàllee maa ngi fàttali sama mbokki sëriñ daara yi ne liggéey bi metti na waaye ku ci sellal sa liggéey kenn du la yërëm ndax yàlla moo lay taxaw waaye di leen foogu bu baax ñi bëgg xajamal daara ji tarax ci seen biir te ngeen doyloo te ngeen doyloo yàlla ci seen lépp te bu leen yaakaar mukk ne fii ci réew lay dundal daara ci état lay jóge ndax état ay daaraam moo ko gën a ñor ci seeni daara te waxtu ne ay dànga ay dongaam dajal nañu ko te yéen seeni dong dajaluñu leen te bu fekkoon ne réew mi bépp kilifa bu fi daara defar ba nga doon dara delloo nga jukkal daara yi kon seenu jaaxle jeex waaye bépp sëriñ daara bu xam boppam xam li ko tax a jóg faaw mu ak tumuranke te am na ci ñoo xam ne fëkk yóbbu leen te seen taxawaay ràññiku na ba manees na ko méngaleeg jihaad fi sabilillah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah fa inna al fi sabilillah tabaraka wa taala baabu min abwaabil jannati yunajji llahu tabaraka wa taala bihi min alhammi wal xamm rawaahu ahmad bu loolu jàllee ma yëkkati tuuti ay kàddu jëmale ko ci yoon bi nga xam ne xaadimu rasul moo ko taxawal te mooy tarixatul muridiyya yoon murid nag ku ci soobu ku ne war ngaa jiital sàkku xam-xam ngir jàngaleeg sëriñ bi mën a leer fi ndax ku sañoon boo fi indaalee ak réer ñu jàngal la ba moo tax bari na lool fu muy fésal ci ay mbindam muy déngaane ñuy jiital xam door a jëf di leeral képp kuy am murit lan mooy njëriñul xam-xam moo tax mu ne haaka wasiyati yaa muridu taxwi biha jumlata ma turidu fa xaddimil ilma ala kulli amal isa arabta an tafawsa bil amal wala takun fi kulli yawmin daarika taalluman waxmal bihi mudaarika fal ilmu yuxyi qalba man taallama yunawiru nafsa yaqiha zulama alaykumu bil ilmi wa taaddubi wal amali saalih duna al aybi al ilmu qaidun lima yasur wal jahlu qaidun lima yadur wa adamu al adabi qaidun ila bondin min allahi al qaribi zil ila sëriñ bi nag defar nit ba mu nite ci jikko aku melo moo ko itteeloon te loolu ci xam-xam bu leer la ko daa jaarale moo tax ña àndaloon ci njëlbeenug yoon bi ñëpp ay tànneef la ñu woon ay tànneef la ñu waroon lañu la woon waaye nag seenu bëgg mosu weesu ku leen teg ci yoonu yàlla ak xamal leen lu leen tax taxa lu leen tax a jariñu ci tey ak bu ëllëgee moo tax man ñooñu wuute leen fi ci jëmmu jéem a roy seeni jikko moo ko ëpp solo ndax jëwriñ ju fi yor aw mel woo jëlewul ca ndono la képp koo jiite pas-pasam dafay wàcc waaye du du yéeg kon yow mi tuddoo ab taalibe xamal li tax ngay toppee te xam ne boo umpulee boo ko umpulee aw nga yoonu réer te jamono jii nu toll bare na fi ñu mbooloo topp te ndono moo leen boole waaye du jikkoo ju mënee fa roy kon yow mi toppe war ngaa topp kuy jaar ci yoonu njub ndax murit yu mujj yii kat bari na ci ñu amul ràññee donte nag taalibe murid yi mën nañoo bari lool te ñu te duñu bokk lu leen tax a ndax ñenn ñi dañoo juddu fekk seeni waajur nekk ay murid te fa ñu jokk xamaluñu leen nu am murid war a ñenn ñi sëriñ su ndaw si yàkkam seen àdduna te royuñu ca seen jaar-jaari maam ya te umpule lool ci saalul yoon wi ñooy fiir ndaw ñi di leen wan seen bopp te duñu leen yar ci diine ndaw yooyu nag waroo lool ak seen morom yi jàng bay jàngale ba noppi di sellal seen diine ndaw yooyu nag mënuñu doon wéttal ci mag mu wàcc aw yoon kon yàlla na leen yàlla taxaw te barkeel seeni kem te musal leen ci pexem ñi ngeen bokkal ndono li te bokku leen ak jublu suñu tarixa bii nag di yoonu murit dafa bari lool lu nekk ci biir te ki ko taxa te ki ko taxawal di xaadimu rasul dugalu ko ci woon te bi muy dem bàyyi ko fi woon moo tax yoon murit dafa war ci bépp taalibe boo xam ne bëgg ngaa jariñu ci yoon wi te dooloo am naa féq wala nga dajee kuy fooyee sam xel war ngaa gëstu ba xam fooy teg sa tànk ndax yoon wi dafa bari lu fi yàgg lool ñu gëm loo nit ñi ci yoon wi la bokk te bokku ci te li war te li war ñu te li war ñu bàyyi ko xel te li war li war ñu war koo bàyyi xel weesuwul ay intérêt personnel yu ñuy sàmm ci biir léegi nag dafa jot sëkk ñu bàyyi wax yi ñu di nax nit ñi ci am xel ngir ay intérêt te xam ne Serigne Touba dafa daan jariñ nit ñi waaye daaw leen jariñoo ay doom itam adduna mosula soppi seenu mero kon bu leen royul adduna soppi la te réew nag bari na ay kilifa yu sell ci biir yoon wi waaye dañoo mat a xàmmee te kuy ànd ak nit te bëgg dem na nga ko fekk ci kaw yoon waaye képp ko ànd ak ku xamul fu yoon woo féete yaa réeral sa bopp moo tax tollootu ñu yi di nax nit ñi ak di réeral te duñu ko xam léegi nag xaaj murit yi ci taalibe yi nag taalibe yi ñaari xaaj lañu benn xaaj bi mooy ñi juddoo ci yoon wi fekke fi lu bari xam fi lu bari beneen xaaj bi juddoo wuñu ci yoon wi fekke fu fekke fi lu bari waaye déggee nañu fi lu bari tax na li leen fi ump bariwul kon am murit li war ci moom na jéem a xam nu murit bi daa doxe démb ak nii muy doxe tey da nga gis ne lu ci bokkul ñu waroon ci génn ba noppi ñu bàyyi ko ci biir li ko gën a yokk nag mooy jamono yii dafa bari ñuy jëfandikoo pouvoiru jàmbur ñuy jëfandikoo pouvoiru jàmbur te du lalu ci ak dëkk loolu nag du jur lu may coonob mboolo bi bari na bu ñu fiy xeeb ak taalibeem dara warul ko lu bëgg koo xeexe doolay jàmbur te li ma ta wax yoonu murit folklore bii fi nekk ak poobu bari mi te ñi koy def di làqu ci ginnaaw ay doomi kilifa ak ay soxna yi kilifa te li ñu nekke umpul seeni kilifa loolu mat naa waxtaane te kër kilifa yu ci bari waykat mbaa feccikat yoo fa taseel ñoo lay jëkk a sab sëriñ te ñooñee lu ñu buub xëpp ko ci yoon wi xanaa Serigne Touba ñuy dundee yoonam wii naruñu koo delloo njukkal am nanguy addiyee di ko joxe ci lu neexul Serigne bi mooy njukkal li xanaa da ngeen a fi sëriñ bi jaaroon ci diggam ak boromam ba mu fay ko lii kon ku ne mooy sa royukaay te ko ci jom royoo ci ngor royoo ko ci muñ royoo ko ci na mu wéetale woon boromam na nga ne jariñoo ak liggéeyam nga fi nekke waaye féete woo ko fenn sëriñ bi nag am na li muy am ba noppi ci diggam ak boroomam ki ko amagul nag bëgg a doyloo poñetum àdduna moo nekk ci ak réeram te bari na ci ñoo xam ne mbaaxu sëriñ bi lañuy mbuggoo waaye jéemu ñoo roy ay jikkoom moo tax seen wax yi démb seen jëf yi wedd na ko te lu nekk te lu nekk mën naa jik ak mën naa jik kilifa ba mu des xel mu gàtt ak kàddu gu woyof ak ragal responsabilité ak bëgg daraja réew mi nag li fi sëriñ Touba digal aw ñañam bokk na te faru ci ak topp yàlla te ñi ñu fi bokkal diine ñu bokkoo leen te nawloo leen te bañ leen a jàppe ay noonu te ñu xam ne islaam moo ñu boole tariixa doole ñëw kon kuy xëccoo mbaa ngay werante sa tariixa nu nag li ñu xaadimu rasul digal mooy alaykumu ya mahsar al bi taatillahi bila udwaani tahaababu fi llahi sil jalali bila tanasuin wala idlali inna tahabuba huwa al imaanu li ahlihi surur wal amaanu sëriñ bi doon na ci ne nañuy moytu di wax lu dul dëgg te bañ di jëf jëfi ngistal te ñuy muslu ci yàlla mu fegal ñu ràmbaaj ak jaxasay nit moo tax mu ne ijtanibil kadiba war riyaa wala simil xaqa tahus diyaa xusbi ilahika min annamima fa innaha razilatun samima tarixa yi nekk ci réew mi nag ci kanam tuuti ku ci am pas-pas bay boo làq ko fi barab lu ko mooy mu rëcc ndax ñi fi daa soññee ci diine ñu ci bari làq nañu te ñi ko fi daa suuxat te jikko yi ko fi daa suuxat pas-pas yu ca bari lu ca bari soppiku na te jikko yi daa yi fi daa suuxat pas-pas yi lu ca bari soppiku na te ku fiy digle loo dul def bu yàggee ñu xeeb la te ku fiy tere loo dul bàyyi léegi nga weeru te kuy digle ak a tere ku ne war ngay fàttaliku ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa taxqiluun moo tax jamono ngi joo xam ne sëriñ si ku ci féexlu war ngay bàyyi xel taalibi yi la nekkal ca naaj wa yi am na ci ñuy daj lu metti ci seen barabu liggéeyukaay yi moo xam entreprise yi la nekk ca marché te léeg-léeg leen di sonal kon kuy kilifa war nga leen a te xam ne sëriñ bu fiy gërëm ak gouvernement sa man-man fii ci adduna la ñu ko soxlaa waaye ëllëg yowmal xiyaamati taxawaayu mag ña la fa soxla ndax mag ña yàlla baaxe woon na leen ba dara mosula buur seeni bët ba mu jaral leen faral nit ku jubadi ba lu ñu xam ci moom ci lu dul dëgg gëmm ca seeni bët mbaa ñu fas ca seeni làmmiñ loolu mosu a dal lépp lu jar wax daawees na ca dégg seeni baat te bu jëf waree jëf ja mat daaw ñu wax ci lu ko matul daaw ñu jëfe sàmm alaar te lu ñu mas a am bokk nañu ko ak seeni bokk ndax tëraliinu ndono mën naa yokk wërsëg waaye jëru fuuyu ndax nit mën naa mel nu ne am lu ne te tax mu am liberté ndax ak njëlbeen ku ca xooyee sa bopp dana bari looy moytu moo tax jamono jii jàngale fi looy dund moo gën di fi waare ci loo dul te nett li mbaaxu jàmbur ak i jaar-jaaram te royoo ca lenn bu dóorul ay nax yitam soriwu ko bu loolu jàllee ma wax tuuti lu jëm ci màggalu Tuuba te mu nekk bis koo xam ne jullit yépp a ko bokk waaye ñi fi yàlla cërale ñu man a dalal aw gan ci dëkk bii ñuy sellal nañuy sellal seenu melo tey rafetal seeni jafin ba ku leen wuy si man faa roy ci diine lu ñu bàyyiwul ci seeni kër waaye li fi xaw ci at yi ci am ko ak puuka te lépp di xewe ci biir kër yi gan nag bu amee lu mu man baa mu sañ ko dëkk yaa ko ca yaatal te Touba bari na ku fi organiser ay xawaare ci màggal gi te ñàkkul ne ci soxna yi nga ko roye moo tax kilifa bu fi mënul a tere ab safaan ay soxnaam dootul mën a yar ay doomam te ab taalibe kat lu soxna sëriñam def mbaa ay doomam jàpp ne na loolu laa dagan te li waroon ku màggal si Tuubaa ku ne boo delloo yëg ne sa jikko soppiku na nga jële fi ak njub ak njàngaleem diine kon kilifa yi jiite yoon wi tey woote màggal bi nañuy càmbar li xew ci biir kër yi te tàmbalee ko ci kër yu mag yi bu boobaa donga yi roy ci ñoom waaye responsabilité bu rëy mi ngi ci nii ñuy woote nii ñuy woote màggal yi léegi ndax am ab rax am na ci bu bokkul ak la ko taxoon a jóg loolu lépp nag li ko waral bari na lu ñuy woote te ku wuy si fekk fa lu rax ca la woote waaye li am solo lu ñuy wax lu ne na ko ci suñu xol ñu jéem koo jëf ci suñuy cër tey moytu bokk ci ñi borom bi subhanahu wa taala di wax ne yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna maa la tafxaluuna kabura maqtan inda an taqulu maa la tafxaluun moo tax fa jëf di weddee ay wax borom du ko fekke ku ñu war a roy say jëf na méngoog say wax te mbooleem kiris yi am ci àdduna bi ak ci réew mi ci màggalu Tuubaa la ñu ko waroon nit di waxtaane ndax yoon wi ñi ko séq dafa bari te ku ci ne am nga man te yéene nga ko yoon wi kon bu leen kenn gàllankoor yoonu murit nag fi léegi ñi ngi sàmmal sëriñ bi ndono li mu fi bàyyi dara du yàq waaye bu ñu ko sàgganee nag daa ñu yëg ne sëriñ bi baati moo ko itteel te moo ko itteel boppam leneen lu ñu gis nag nañu xam ne yoonam nekku ca nii dunde sëriñ bi yoonam nekku ca ñiy dund ci sëriñ bi nag te dundaluñu ak bëggam lépp lu fi naqari am morit ci yoon wi ca ñoom la bawoo mboolem ñi fi dunde sëriñ bi nag te dundaluñu ak bëggam lépp lu fi naqari am morit ci yoon wi ci ñoom la na ñépp xam ne tuddoo am morit lu yomb la waaye doon am morit lu jafe la kon ku yàlla baaxe ngay dund ci ak taalibe warees na laa téyel sa pas-pas te xam ne jamono ji soppiku na te ñu wàññi kilifteef te ñu wàññi kilifteef gi ñuy note nit ñi te ak dëgg la taayu ko ëpp ay at nag ña nga seqal ak bokk te ku faa gën jikko fii may jeexale nag mooy fàttali sama bopp fàttali sama bopp fàttali ñi nga xam ne fàttali ñi nekk ci këri diine yi ñuy nangu dogalu yàlla te jër te jër bi leen yàlla defal ñu sàmm ko te bu ñu ko xamee ñu doyloo ko tey moytu di wéy ci xalaati ay politiciens te ngeen booloo di bokk ay xalaat ndax xel nanguwul kenn ku ne di dajale mbooloo jamono boo leen te yéen ñiy dajale mbooloo yi seenu gise bariwul loolu dafay féewale ak njaboot di wàññi doole kilifa te jamono bii ku ci am seetlu xam ne li soppi ku ci jikko yi bari na kon am na lu ko waral moo tax nañu farlu ci defar jikko yi ci biir kër yi door a génn ci penc maa ngi leen di baalu àq wax wa kullu aamin wa antum bi xayr aleykum wa wa barakaatu boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi ko